ici présents ont, se pour porter, et les présidents de conseil départemental se sont manifestés pour porter votre candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Excellence, Monsieur le Président, d'après toutes les personnes qui ont la parole, toutes les allocutions, ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté ni d'illégitimité. Cette candidature est une demande. Elle a été faite pour le Sénégal et pas pour l'intérêt d'aucune des personnes ici présentes. Nous sommes là pour le Sénégal, Monsieur le Président de la République. C'est une demande qui est sociale, c'est une demande qui est économique, c'est une demande qui est nationale. Monsieur le Président damay wax ci olof ah président ah comme ni ko maire yi waxee li ngeen wax rek laay répété monsieur le président ah xam nañ ne sax waxuñu nga tontuñu tey te xam nañ ne ndax li nga boole paramètres yi dafa bëri loolu mënta ne waaw loolu président nag tontu waaye man damay wax damay wax li sama xel joxe président de la république président waaw ñun li ñu wax. ñun li ñu wax bu ko neexee moom la bu ko naqaree moom la ñun ñooy Sénégal ndax tey jii on est quatre-vingt-cinq pour cent des élus du Sénégal ñoo fi toog kon ñun waxatuñu waxu premier tour waxuñu leneen ñun on gagne au premier tour loolu président féete na boor kilifa nag wax ji wax ji lu mu neex neex monsieur le président de la république suñu kilifa la on lui met à l'aise waaye bëgg nañu ndaje bii ñu ko def tey ne ko balaa ngay wax ak génn di wax looy wax xamuñu looy wax waaye bëgg nañu liñ la wax nga tenir ci compte président ah li ñu naan o faña ngoor saaro o fañ na na rooga deb na kolum o fañin fañ fañ fañ ta wacaacaa loolu la séeréer di wax ne loo bañ ngay bañal ngóor saar yàlla fas yéene taw ci toolam mu neex la mu naqari la day taw bu lay naqari taw bi di gën a bari loolu la séeréer wax président woore fi yaal mbin in président woore fi yaal mbin in sa njaboot a ngi nii yow la ñuy xaar yow la ñuy déglu wasalaam njoko njal njoko